jëm sa ñag ba day bës bu fa àggee ba samp faf kër ñun ci boppam ñooy watatu génn abal ko l'enquête quotidien naan lu métti te mësta am ci réew mi am na fi démb attaqué benn bus tata ak cocktail molotov le soleil yéen a kaay naan ñaari nit ñàkk ci seen bakkan juróom ñaari blessé grave daal di cay am tribune kaay naan man juróom ñaar ci agresseur yoo xam ne nee ñu dañoo fii seen kanam ba kenn gisu ñoo daal di attaqué benn bus sa yaraax Antoine Félix Diome ci yéen a kaay bi naan ab attaque terroriste la te képp koo xam ne taqee nga ci mbir mi mbaa nga laalee ko daa ko réccu walla yoon ubbi na ci enquête ma ne la dañ koy leeral képp ku ci laale di nga ko réccu ba maar day taali réew mi quotidien naan man attaque terroriste moo am ca yaraa ñaari nit ñàkk ca seenu bakkan ay téléphone portable ñu daal di koy yóbbu chauffeur bi ci boppam di wax attaque bi nan la amee nan la juróom ñaari nit yi songee tataa ba sànni cocktail molotov ci biir bis bi gannaaw ba nga xam ni taxaw na bus bi commencé takk ñu daal di pincé bunt bi daal di dugg tàmbalee nag sàccaalalu askan wi vox populi naan lees waxulan ca de ndax diggante chauffeur ba ak receveur ba la ñu wax ca xaalis ba doy na waar lool ndax chauffeur ba dafa ne xaalis ba dan ko jël receveur ba naan tàkk na tribune yéen a kaay naan kon may ma ma ñëw rek yow soo ma mayee daal daa dégg daal yi suur su aar naan en tout cas réew mi jaxasoo na benn pàcc baa ngay tàkk beneen pàcc ba moom deret nga fay tuuru ay néew ñu leen di tàmbalee wàññi ci réewum Sénégal yéen a kaay bi naan man gannaaw ñaari bakkan yi nga xam ne rot na te daal di rotee démb ca yaraax benn bus tata bu ñu daal di attaqué am na ci benn sàmm boo xam ne dafay yendu tool yendoo coono di jël téléphone portable am bu mu doon chargé ñu daal di koy dóor bal mu daal di ñàkk bakkanam bàyyi nag soxna bàyyi ak njaboot njabootam nekk ci jaxle goo xam ni maar day taali yéen kaay bi naan maan ma nga amee mani la ca Vélingara critique yéen kaay naan maan fii ci Ndakaaru it ay bakkan mi ngi fiy wéy di rod laa ni la ab attaque terroriste daal di am amee fii ci Yaraax Antoine Félix Diome ministre de l'intérieur naan acte criminel la lu xel mënta nangu la ñaaw na ba fu ñaaw yam la nga xam ni fi mu ne am na ci réewum Sénégal ñuy faati bakkan ci anam woo xam ne ñaaw na di attaqué ay bus turbine yéen a kaay naan déet ma ñëw juróom-ñaar ci agresseur la ñu ne ñoo attaqué bis ba ca yaraax ko di quotidien naan konte am na ay caméra surveillance yoo xam ne man mën ñoo dëggal attaque bi wane nañ ko turbine nan kon ma ñëw rek ndànk juróom-ñaari agresseur yoo xam ne danoo fiitu takk seeni kanam nee ñu ba kenn gisu leen ñu ne am na ñaar ñu ca gaañu ñii naan kenn ki xale la kenn ki soxna ñenn ñi naan ñaari soxna la bu cay dëgg turbine naan maan ña gaañu fu ñu ne l'observateur naan kon ña nga l'hôpital dalal jàmm kon ana blessé ya ana ña nga xam ne nee ñu lakk nañu ba xëm lobs naan kon déggoo ña nga dalal jàmm tribune yéen kaay naan kon ma ne ana blessé ya ña nga xam ne war nañoo wax témoigner anañu amul kenn koo xam ne yaa ngi bàyyeekoo ca bus bi wala nga nekkoon ca bus ba nag ñu la nga wax yéen kaay bi dee média bi naan fu yaram dul dem xel a fay doxantu ana témoignage yi ma ne ana ña nga xam ne ay blessé lañu l'observateur naan koon juróom ci blessé grave lañu noté tribune naan kon weddiwuma anañu vox populi naan kon en tout cas réeroo bi daal ma nga tàmbalee ci diggante receveur ba ak ka xam ni mooy chauffeur ba ca la nga xam ni nag jot nañ ko liggéey ca bus ba Walf Quotidien naan ak lu ci mënti am ña nga jëmee Sénégal foo xam ni maar day taali ña ngi ko jëmee foo xam ne buñ fa àggee ma ne la dana metti ci ñun wala l'observateur naan jëf ju ñaaw ju salte ji nuñ ko mënee te altine gii attaque gu ni mel am na diggante caaroy ak jàmm gën am na ci ñoo xam ne dañoo amee ay lakk-lakk yu metti ba maar day taali turbine naan kon ba tey weddiwu ma de blessé yi ma ne la ana ñu nañu génn wax ñeneen ña nga xam ne ñoo nekkoon ca bus ba te duñu ñu ay blessé wax leen ndax nag Pastef ci boppam mi ngi sàkku ab enquête boo xam ne day daal di leer yéen kaay bi dee média bi naan maan waa Pastef ci boppam nee ñu ay faatu bakkan am na ci réew mi mat weer wala mu ëpp ko ba tey France daal di xidéem ataagu bus bi am ca yaraax nañ ko jaarale ci yoon laas naan en tout cas ñaari soxna faatu nañ ca am cay juróom ñoo xam ne seeni gaañu gaañu metti na ba jéggi dayoo turbine yéen kaay naan réew maa ngi suux de faatu bakkan ci manifestation yi gannaaw ban jàppee Ousmane Sonko tey yegg na ci ñeent ciy bakkan yu ca MMA am na xale bu góor boo xam ne daal dinañ koy jambal l'observateur naan réewum Sénégal de lu fi mësta am tàmbali naa am ci réew mi ñi ngi attaqué ci réew mi ay corbillard di dal ci ay daara yu kawe di dal ci kaw ay l'hôpital ndax l'hôpital bu sigi coor fajkat ya nee ñu urgence la xale yi di songu di andi seeni blessé di forcé fajkat yi ngir ñu faj leen daar daar yéen kaay futur média bi naan maan ay bus ñoo ngi leen di taal ci réew mi lu mësta am ci réewum Sénégal nag tàmbalee am ci réew mi 24 heures yéen kaay naan maan moo taxit sames ma ngay artu ci li nga xam ne tàmbalee naa am ci réew mi te mu ñaaw lool le témoin yéen kaay mel ni ku naan loo ñaawlu ñaawlu bul fàtte ñaawlu waa Pastef yi nga xam ne ña ngi leen di jàppe ci anam woo xam ne metti na wala ña ngay résisté waaye ña ngi leen di jàpp turbine yéen kaay naan man gannaaw Cheikh Gueye Ousmane Diop maire bu Parcelles Assainies Jamil Sané jàpp nañ ko maire bu Patte d'Oie Maïmouna Dièye ñu woolu ko ci division des investigations criminelles le témoin yéen kaay naan man Toussaint Manga am retour de parquet coordonnateur bu ndaw Pastef yi ñu daal di koy woo Ousmane Diop responsable bu Pastef mbuur ñu daal di koy jàpp ci dibeer gii turbine yéen a kaay naan man papa la ñang tàbbal nañ ko kaso waaye dafa dugg rek génnaat dem pavillon spécial ndax wopp libération yéen a kaay naan man bentalab sow ak aadi seen am nañ retour de parquet ka jiite ndaw Pastef ca Tamba it jàpp nañ ko Cheikh Omar Diagne Abdou Karim Gueye ñu wéy di des kaso ndax lànk nañ seen génn gi El Assane Sall ci turbine yéen a kaay naan xam nga lii ñu def Ousmane Sonko ak Pastef dafa nekk loo xam ne lu ñu waajal la yàgg koo togg ci réew mi ku gumbul taxoo luwoo ci réew mi pexe gouvernement gi mooy du bokk ci élection yi te pexe yooyee jaar na fu ne waaye mujjantal ga daal Ousmane tàbbi na kaso l'évidence yéen kaay naan man xoj Ousmane Sonko ak partem bi Pastef naj leen ba dootuñu amati lii dey moo doon yéene te yéene ga antu na fa yàllaahu waxtu woowu réew mi ki jafe-jafem tàqali kooguñu ak moom turbine yéene kaay naan man genn gaal daal dinay suuxee ca Saraya ca Kidugu juróom-ñeenti bakkan rot ca daar daar juróom-ñaari nit ñu leen di wër direct news naan man waxtu woowu nga xam ne réew maa nga yëngu ba jax moom président Macky Sall day ma nga woon ca Gàmbi di dalloon nag ab lekkool boo xam ne bu yees la juróomi téeméer ñeen fukk ci million ñu daal di koy def wàllu njàng meeg njàngale mi nag tax koo jóg l'école sénégalaise ba ñu dippee ko Tobago Road ca Banjul yéenekaay bi naan maan ab taarix la ndax nag ci nganam ndongo yi dañ ko xamaloon ne jàng ca Gàmbi metti na ci ñoom ndax lekkool baa tàmbali woon yàqu ñu daal di wàccee l'école ba defaraat ko ba mu yeesaat ki noon it groupe scolaire bi ñu duppee Kanifing daal di koy def l'école boo xam ne bu mucc ayib la moom président Macky Sall ma teewoon dalloo ko jaajëfal Cheikh Oumar Anne mi nga xam ni moom la dénk njàng meeg njàngale mi ndax nag loo ci manti déggit moo tax ba daara joojee dal di taxaw lu toll ci juróom-ñeenti téeméer fanweer ak ñeent ciy ndongo bàyyeekoo ci fukk ak juróom-ñaar ci dëkk yoo xam ne wuute na ci dénduk Afrique di fa jàngee l'observateur naan maan diggante Sénégal ak Gambie ma ngay ra tax wala source a naan kon l'école bi ma nga taxaw ci ñetti junniy mètre carré te lépp loo xam ne ay norme la mu war caa taxaw taxaw na ca le point yéen kaay naan maan boobu MPD liggéey ak professeur Aliou Sow ñu ngi ci tournée di taxawal seeni yu yees ak yi âgé di amal ay tàkkusaanu waxtaan diggante ndakaaru Bambey Saint-Louis ak Gossas tribune yéene kaay naan maan ak lu mu métti métti jàpp leen ni juróom-ñaar ci agresseur yoo xam ne dañoo nëbb seenu kanam attaqué nan abus fii ci yaraax waaye ba tey ña nga xam ne nee ñu ñoo ca lakk ba faatu gisuñu leen blessé yi gisuñu leen ba nii amul benn témoignage ak lu mën a ba fii nii si bi nii am client bu demandé arrêt ma taxaw di ko wàccee dama jékki-jékki rek gis ñaari deux personnes génn yor ay xeer ay ngandi xeer ah léegi taxaw jàkkaarloo man face à face an may saaga bon bi ñuy saaga peut-être maa ngi gis beneen gain bi yor flamme bi quoi taxawee à côté. mooy cocktail bi mais mi ngi takk flamme quoi mais man booba man comprendre lu ben ay sept lan six bon bi client bi wàccee nag si la si la benn si la copain bi profité daal di lancé affaire bi si biir oto bi bi mu ko lancé si sama tànk bi fii nii si pédale bi la ko lancé moom moo ma def nii sax bi mu ko lancé noonu nag si affaire bi daf falaam bi mu falaamee bon ki naa yi di di profité di jaar si fenêtre di wàcc ñoom ñu ñu daal yi pincé porte bële ndax ay ponkal lan la danoo njool ay ponkal lan te danoo camouflé donc seen bët yi rek moo lay jox image bu ñu waxee yaa ngi koy dégg ñu pense porte bi porte bi ubbeeku am ñu daal si biir